sagal nga gaay jébbulu te yow dangay ku soppuloo ku ñëw ci yow nga fonkuloo Cheikh Mourtalaam Cheikh Saaliw defar nga gaay lay dikkal lu baax nga xëy di leen digal tàggat nga leen booleeg digal ñu jëf koroy nga Saaliw Cheikh Mourtalaam Cheikh lu baax nga xëy di leen digal tàggat nga leen boo leen ñu jëf koroy nga saaliw si mulu talaab saaliw ku dëkke fekke sab jataay nga ful xolam muy gën gi waay kaña la rang may médaay mat naa mat nga saaliw Cheikh Mourtala am saaliw Cheikh Mourtala yaa ma defar yaa tax ma naw ahlu badar seen boor nga aw dëkkee nafar téere borom ba saaliw Seex Murtala yaa ma defar Seex Murtala Seex Murtala Seex Murtala Seex Murtala Seex Murtala na ñëpp def nii nu borom jannatu Murtala Cheikh Murtala ñëpp dem di nu màggal borom daaru minam ana ku bëgg Cheikh Murtala Serigne Salim Cheikh Murtala yaa ma defar yaa tax ma naw ahlu badar seen boro aw dëkkee na far téere borom ba saaliw Cheikh Murtala yow jomm nga nelaw fajar lu jiitu sax jullit fajar ngay jug di jàng kay sikar di roy sa ba saaliw Cheikh Murtala yow jom nga nelaw fajar lu jiitu sax jullit fajar ngay jug di jàng kay sikar di roy sa ba saaliw sellal nga yow sellal sa jëf lu sellulit yow doo ca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 ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di leen ziar fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di teewlu sunu kàddu waaye di gis suñuy jëmm ñu ngi jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadul Mortada ibnu Serigne saariw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ku gis euh, barab bi nu nekk ak jëwrin yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk sunu wet ngeen xam ni ñu ngi ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi liggéeyu Sëñ Tuubaa bi fii ci kër Balla ci Mbuur di tool yi sëriñ Touba. waaye di tool yi nga xam ne Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu moom moo ko moomoon sanc ko eh, ay taalibe joxoon ko ko ci atum 1972 tool yooyu foofu lañ nekk bu ngeen gisee liggéey bi gis tool yi gis mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci sunu ginnaaw xam ni liggéey yalla baa ngi nii liggéeyu Sëñ Tuubaa baa ngi nii waaye liggéeyu Cheikh Saliou baa ngi nii waaye it liggéey Cheikh Mouhamadul Mortada ibnu Serigne Saalihu baa ngi nii noonu mu ko waxee ci kàddu yu njëkk yi mooy tool la boo xam ne Cheikh Saalih la ko ay bokki taalibe joxoon ci 1972 Serigne Saalihu naaloon fi daara comme ni ngeen ko xamee mooy sañci daara defar nit waaye yar doomu aadama yi jàngal leen tarbiya leen naal boobu yi la fi Cheikh Saalihu Mbacké amoon ginnaaw bi nga xamee ni nag dem na ba liggéey bi yaatu lool ci la woo caatam mi Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Salihu jox ko ko ci ak mu jëm defe naa mi ngi ko ko jox ci atum 2006 ci la ko wo ba mu ñëw mu xamal ko naal yi nga xam ni moom la amoon ci barab bi te mooy ni mu ko masaana amee ci barab yi ko njëkk ni ngeen ko xamee muy xel koom ak yeneen daara yi mooy yar ak liggéey ak jaamu yàlla ak jàngale. Euh, naal boobu it la fi Cheikh Mouhamadul Mourtada am ni ma ko waxee léegi mooy woy juróom mu ko waxee woon dafa teggi tànkam rek mu teg fa ci bi mu ko sancee sëriñ bi mi ngi ko sanc ci at at yu mujj yi diggante deux mille ci fin deux mille dix huit deux mille dix neuf ci la woo taalibe yi bañ ñëw mu xamal leen barab bi ak euh, jubluwaay bi ak li taxoon Cheikh Cheikh Saliou Mbacké jox ko ko. ànd ak ñoom di fanaan ak ñoom ci barab bi nga xam ne barab bu tumuranke la waaye wàcce boppam xamal leen ni ma barab bii kat barab bu tedd la boo xam ne eh, barabub ndigal la waaye barab la boo xam ne itam naal bi nga xam ni moom la fi Cheikh Saliou Mbacké amoon yéen yooyu rek ci moom laa fi am te fas yéene koo ànd ak yéen ndax lépp lu mu amit fas yéene wu koo ànd ak kenn ku dul ñi nga xam ne ñoom la ko suñ Tuubaa booleel ak bépp murit boo xam ne rek liggéeyal Sëñ Tuubaa ñor na leen sëriñ bi ñëw fi ànd ñoo ànd feek ñun daanaka def fi ay semaine di fi fanaan ak ñun fii ci barab bi nga xam ne barab bu tumuranke la di fanaan ci bâche nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mourtala liggéeyal yàlla waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa képp ko ñor euh, ginnaaw loolu daaw mu bay fi dugub woo bokki taalibe yi dugubu basi ñu ñëw yéwénal ko ren gis ngeen ko ci mille vingt 2021 bi mu bay fi xaal ak euh, ñebbe ci ñebbe jooju lañ toll di dindi ngooñ mi ngir dajale ko waaye itam euh, ni ma ko waxee léegi barab bi day barab bu bëri kéemaan ndax euh, Cheikh Saliou Mbacké bi mu ko jotee ci atum 1972 la woo magam ñi nga xam ni ñoom la ko Sëñ waa booleel yabal leen fi ñu ñëw sanc ko ci sanc bu méttee méttee méttee métti barab boobu jamono yooyu ñoo ko fekk woon ba léegi ñu ngi fi barab boobu it euh, na ko Cheikh Saliou Mbacké sanc woon même bi ko moom Cheikh Mamadou Mourtada sanc ku nekk xam na ni fii mbuur mën na fee am lu nekk waaye bi mu woowee mbokkital bi yi itam dafa ñëw toog ak nga ànd ak ñoom di fanaan ak ñoom ci biir bâche yi di yendoog ñoom di fa di di di di di di fanaan ak ñoom di di di di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni yéene jooju la am fii ci barab bi kon barab bi barabub liggéey la liggéey yàlla la barabub liggéeyu yàlla la euh, nam ko naale ci xelkom naale ko ci yeneen daara yi te ma waxee ko léegi ndax Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee fekk li nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddoon yoon wa mel ne lu xaw a raaf ndax mu jadd di noonu la ñuy doxee mu wax ni sosuma lu bees waaye damaa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon moom rëddoon far ma ñëw bay ko ba mu set ma xallaat ko ba mu ba mu leer ma tegu ci yoon wi daal ñëw leen ñu ànd àndandoo dem yoon woow yi la Cheikh Mamadou Mourtada ibnu Serigne Saliou fas yéenee jaar te mooy ñëw saa yu nekk jamono ju nekk ñëw nit ñi dañoo aajowoo yar aajowoo tarbiya aajowoo jàngal ndax li ma ko waxee léegi doomu aadama dafa composé ñett mooy dafa composé xel composé ruux composé yaram te yar boobu bépp bu ci manqué rek dana feeñ ci jëmmi doomu aadama ji ndax sëñ Saliou dafay wax ni jàng mi munta ñàkk li am xel ni ma ko waxee munta ñàkk ñu jàngal ko ba mu dañu réer waaye ñu ko jàngalee ba mu dañu réer it ruux gi mënee su koo ñàkk tàggat ci ak jaamu yàlla waaye ñu tàggatee roogi ci ak jaamu yàlla itam yaram yi mu ne su ko eh, ñàkk a tàggat bam bam bam bam ba mën a liggéey ndax ñaar yooyu rek bu desee même jëmm jooju su doon def ab daawa sax daawa boobu eh, maanaam am yambar la ci doon nga xam ni su yaree suñ yaree doomu aadama bi ci ñett yooyu eh, li ñuy wax ne insaani insaanul kaamil dafa jomb waaye ñett yooyu buñ ci noppee buñ ci noppee ci doomu aadama bi daa nga da mën a wax ni kii insaanul kaamil la dana doon koo xam ne nit ku jub la dana doon nit koo xam ne nit ku nu yar la waaye dana doon nit koo xam ne nit ku nu jàmp nit ku jàmbaare la loolu nag mooy liggéey suñ Tuubaa bi moom la Sëñ Saaliw ñëwoon di ko yeesal waaye moom la Cheikh Mouhamadul Mourtada ñëwaat di ko yeesal fas yéene koo sanc ci barab bii nga xam ni barab bu barkeelu la waaye barabu liggéeykaayu yàlla la waaye barabu sant yàlla la kon daanaka eh, yéen waa Tawfekh Production Euh, ñi ngi leen di nuyu nuyuwaat di leen sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ni am ngeen ko ci liggéey liggéeyu Cheikh Mamadou Mourtada bi ndax jamono ju nekk rek yéen ngi fas yéene ànd ak ñun liggéey bi fas yéene ko di ko tasaare di ko wan doomu aadama yi nga xam ni ñi ngi ci biti te fas yéene bëgg lu baax ndax sëñ Mourtada loolu rek la woote wootewul ay caaxaan wootewut lu dul jaamu yàlla waaye wootewul lu dul wane liggéeyu sëñ Tuubaa bi wanuñu boppam wanuñu lenn loo xam ne lu jëm ci moom la waaye lim ñuy wan saa su nekk mooy liggéeyu yàlla mooy jaamu yàlla mooy liggéey waaye mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa kon mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaar di siyaar suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo suñu wet di sëñ Modou Jaxate ak Cheikh Mouhamadul Bachir fay eh, kaddu yi sax ñoom ñoo ko waroon a wax waaye ndigal la moo tax mu xaw a sax eh, jàppandi waaye diis na ci ñun di siyaar suñu jëwriñ ji moom it Cheikh Abou Sarr ma nga xam ne moom moo fiite féete fii ci Mbuur teye jiite liggéey bi nga xam ne at mu jot moom lañ fi fekk ànd ak moom liggéey bi mu koy taxaw yu taxaw du taxaw bu am solo kon ñi ngi nuyuwaat bokki taalibe yëpp di leen siyaarewaat di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillah da taw tawféex ci ñun moo tax ñu fonk ko lool ndax képp koo xam ne nii rek xam nga Serigne Mourtada moom Serigne Saliou amoon nga yéeney daara ji nekk ci sa wet ba saay boo xëyee rek mën ñëw liggéeyal ko fi waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fi féete sunu borom defal taw tawféexuk ñu dëkk ci daara ji nga xam ne saay su nekk rek sunu yitte yëpp ci daara ji lañ koy def waaye bu ñu tolloo ci liggéey bi eh, yaatu lool dañuy daal di eh, laaj ndigal ki nga xam ne mooy Serigne bi. ngir nu mën ko woote mu yaatu lool ndax eh, daanaka dañ ci xaw a néew doole ci wàllu liggéey ko moo tax ñu woote ko mu yaatu nii eh, ba tax na mbooloo yi nga xam ne nii dañoo jóge ci barab yu fasantikoo yi eh, ci biir Sénégal yëpp daje fi tey jii ngir liggéey liggéey bi nga xam ne nii moom lañ maanaam mottali liggéey bi nga xam ne moom lañ fi tàmbali woon loolu nag doon tawféex lool doon itam ak cant ci ñun ñu ci sant bu baax mbokk taalibe yëpp di leen ñaanal lépp loo xam ne nii rek am nañ ko yéene ci liggéeyal sëriñ bi yàlla na sunu borom jàppandal ko ndax euh, lii da di sunu mbégte da di sunu njëriñ tey ak ëllëg euh, mënuñoo wàcce sunu kàddu nag te ñaanaluñu sunu jëwrin Baye mu Diakhaté mi nga xam ne nii moo jiite daayira national Nahjul Qadaa'il Hajji di ko ñaanal sunu borom yàggal ko ci kanamu taalibe yi euh, wéral ko di ko ñaanal itam mboolem jëwrin yi nga xam ne nii ñoo jiite mbooloo yi ci gox yëpp. Euh, di santaat bu baax itam waa dëkk bi ci taxawaay bi nga xam ne ni am nañ ko ci daara ji ndax saay su nekk muy guddi muy bëccëg ñu ngi ci daara ji euh, ni ko sëriñ bi diglee woon ne euh, ñi fi dëkk yeeweeguñ leen moo waral du sunu njàmbaar nag waaye saay su nekk rek ñu ngi ciy jëm sunu kéem kattan loolu nag di tawféex joo xam ne dañ ci sant sëriñ bi. ko jëwriñ maa waxee rek fii dafa bërëbu tawféex at bu nekk ñu koy waajal di ko fi ñëw di fi ut si ngërëm di ut si ngërëm Sëriñ comme ni mu ko waxee nag daayira national bi nga xam ne jëwriñ Modou Diakhaté moo ko jiite nañ ci am waajtaay ñu ci taxaw nag daayira bu nekk at bu nekk da nga koy waajal ngir mën a ñëw indi sa mboolem taalibe ñu teew si fii moo tax boo xoolee kaar yëpp ñëw nañu daayira yëpp ñëw nañu ngir fas yéene jublu ci liggéey bi ñu ngi sant si borom bu baax a baax a baax sañ si sëñ tamit sëñ Moutala Mbacke bu ñëwee fi nag Pastef lañu fi indi ngir jëmmal jëmal liggéey bi lu jëm ci basi bi lu jëm ci ñebe bi yëpp at bu ne ko ci préparé daan na naan la di di ko waaj saa su nekk di waaj xel comme di waaj fii tamit euh, Kër Balla Kër Balla nag day taw fii xamante ne nii amaana dafa kawe suñu njort sax dañu fi ñëw wut si ngaram lañu fi wut si moo tax bu ñu ñëwee daal liggéey bi daal dañ ci dem ba ba daal fu ñu mun a yem daayira bi ñëw nañu man daayira Kër Massar la bokk waa Géejawaay ñëw nañu waa kaw Kaolack ñëw nañu waa Mbuur ñëw nañu waa Géejawaay waa HLM waa waa Golf waa Parcelles Assainies waa Boune waa Louga maanaam daal te daal Touba sax la daal wax buñ buñ ñëw ndaxte ñooñu ñu jagal ñu féete tu euh, ci toolu Xelkom bi wax dëgg am nañ am nañ ci mbégte bu baax a baax baax. di ñaanal suñu sang bi Serigne Moutala moom Serigne Saliou mu yàgg fi te wér euh, ko ñaanal liggéey bi mu naal jëmale ko ci liggéeyu Serigne Touba bu Serigne Sa Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal mu mottali yéeneem te ñu ànd kook moom. waaw di sant nag mbooloo mi fi teew yëpp ci ndigalu. jëwriñ sëñ Modou Diakhaté euh, di sant jëwriñ Abou Sarr mi nga xam ni liggéey bi daanaka ñun dañoo ñëw rek pour teg ci loxo waaye daanaka lépp mat na waaw di sant yàlla bu baax nag di sant mbokk taalibe yi ak seen Pastef ak seen bëgg mu talaa saaliw waaye nag bëgg nañ ko jërë bëgg ndax man day 99 laa jébbul rees la woon ci moom ndax maa ngi jébbul ci Serigne saaliw waaye boobu ba léegi de jàpp naa ni rëccuwuma dara ba ma ànd moom ba léegi maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant di am yokkute di am ay tawféex ki xéewal te lépp ci mbaaxam la kër sëñ Mourtala am sëñ Saliou e, doon doom sëñ Adama Sarr mu sëñ Saliou Mbacke bu baax a baax a baax waaye kër Balla gi ñëw di mooy tool sëñ Mourtala am saali Saliou yi e, mu woote fi ab liggéey liggéey gi nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax ndax e, dafa doon lu nga xam ne àdduna moo toll ci liggéey surtout wàllu tool di liggéeyu mbéy mbéy bi nag bàyyiwut dara mooy dugub la gerte ay basi euh, ñebbe te loolu nekk la nga xam ne yombut ndax li tax yombut mooy liggéey ak jaamu yàlla moo ànd kon bu ñu wootee fii rek wootewu fi leen lu dul liggéey liggéey nag ah, nañ ci góor góorgóorlu bu baax dafa comme ni ko bëggee rek ndax liggéey dafa doon la nga xam ne dafa war ab jullit ndax mooy tax nga ñàkk jëriñu rawatina nag ab murit di siyaaraat ñëpp rek mu di Cissé ma ndox du si Sicap Foire di rafetluwaat ma am seenu teewaay si toolu Serigne Mouhamadou Mourtada ibnu Serigne Saliou bu baax a baax waaw liggéey bi de day mel ni mi ngi nii rek maam di waaj sax féetoo boor am mbokki taalibe yëpp wuyu si ko rek muy ay toolu ñebbe yoo xamante ni maam moom la Serigne bi woote woon ren akub xaal daaw ku ne xam ne ni daanaka jotoon nañ fee ngóob dugub basi maam liggéey bi moom nii rek la tëru te xam ne liggéey sëñ moom daanaka du loo xam ne day jeex daf fii ne rek maam ngir dimbali mbokki taalibe yëpp ak taalibe yëpp rek ci taxawaay beeg lépp rek kon bu ko defee ñu bokk yi tamit waajal xel ko bu baax a baax a baax te xam ni tamit sëriñ bi nii rek la ko woowee tamit mbo mbokki taalibe yëpp maam dañ siy dimbali suñu bopp rek bu baax a baax a baax waaw day mel ni liggéey bi tamit nuñ ko xamee rek maam li ñuy gën a dem maam muy gën a dox kon na ko taalibe yëpp rek bàyyee noonu te xam ne daanaka si lii képp la ñu mën a defaroo maanaam te si lii képp la mën a dimbali ko. ndax damaa mos a dégg sëñ Tuubaa mu ne ku xam njëriñal liggéeyal ma maanaam di nga def lépp pour liggéeyal ma ndax nee na moom ci boobu sax su mënoon def jëmmam ji ñaari jëmm benn bi doon doon moom beneen bi di ko liggéeyal nee su ko mënoon def le dina ko def waaye loolu nekk waxin la waxin la goo xam ne ni kon dañ ciy déggee ni liggéey sëñ Tuubaa mooy li am njëriñ. ndax bu demee ba ni su mënoon def sama jëmm ji ñaar benn bi di ma liggéey ngir njëriñ njëriñ li jógee ci man loolu jar naa bàyyi xel bu baax kon loolu lañ loolu daal kàddu yoo lañ amoon ci soññe goo xam ne dañ ci jiital suñu bopp di ciy baaxee mbokki taalibe yëpp ziar ñëpp di màggal ñëpp man la soxna Mati sëriñ Serigne Moutala moom Serigne Saliou bokk ci daaray nax ju géejawaay ñu ñëwoon tey ci liggéey bi nga xamante ni Cheikh Moutala da koo woote ñu ñëwoon doon ci barkeelu rek di ci fasaaleel mbokku taalibe yëpp di soññaa sunu bopp rek tey soññaan soxna yëpp ak góor yàlla yëpp rek te xam ne amuñu leneen lu dul liggéey sëriñ bi ndax bu ñu sañoon moom Mbàkke heure bu wootee rek ñëpp yokk bu ñu sañoon saa su ne mu ñuy woo ñëw ndax liggéeyam moom tawféex la am na fu muy tàmbalee mais amul fu muy yem ñu koy yàggal ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér man la soxna mat mu Serigne Moutala moom Serigne Saliou ziar naa ñëpp maa ngi ziar baax mbooloo bi ñi fi teew ñëpp ci barke Cheikh bu Serigne Saliou tey dañoo teew fii ci daara Mbour muy daara ji nekk Kër Balla Lo ñu wote woon fa maanaam gëttub ñebbe ñun nag ñu wax ci turu daara yu nax ju xadaay xaaj bu géejawaay foofu lañ bokk fa seen nag liggéeyal Cheikh Mourou Mourtala mu Serigne Saliou moom mu nga xam ne moom lañ jaakaar àdduna ak àllaxira. salaamaaleykum di nuyu jéeg ñëpp nag ñoo ci toolu sëñ Mourtala yi mu Serigne Saliou fas yéene koo liggéeyal nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaleykum maa ngi leen di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah tey de moom dañoo ñëw fii Kër la ngir liggéeyal sëñ Touba. liggéeyal Serigne Saliou liggéeyal Serigne Moutara bi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg te comme niñ ko waxee rek liggéeyal Sëñ Touba tànku kanam rek lañ ci am duñ ci am mukk tànk ginnaaw ñun nag ñu nekk ay ndawi sëñ sëñ Saliou nekk ay ndawi sëñ Moutara ñu teew fii jóge ba Thiès bokk daayira nax ju Thiès moo waral ñu ñëw fii nii. bisimilah salaamaaleykum maa ngi leen di ziar sama mbokku taalibe yi. man la soxna Ndioba Saliou ñëwoon si liggéey sëñ bi waaw ñun ndigal rek lañuy ñuy xaar sëñ bi bu wootee rek dañ ci dañ ci teew la waaw di di woo sama mbokku taalibe yépp ñëw si liggéey bi man maa ngi jógee Dakar waaw bokk si daayira Géejawaay waaw Serigne Modou Serigne Mamadou Diop mooy suñu Euh, jawriñ di leen sonn ñu ñëw leen ñu ñëw si liggéey sëñ bi parce que murit ndigal rek ndigal ñun ndigal rek la ñuy xaar bu ñu waxee suñu dégloo ndigal rek bu ñu ko kiyee rek jëfe murit ndigal rek après nga jëfe waaw loolu laa lañ may may nuyu mbokki taalibe yëpp di leen sant te di leen gërëm di sant nag sëriñ bi bu baax a baax ba ñu defee ay ndaw ba pare ñu nekk ndaw yoo xamante ne fu sëñ sëñ bi woote daal ñu nga fa muy xel kom di Touba muy Kër bala fépp daal di ko santaat sëriñ bi bu wér a wér ndax moom taw féex la di ci woo mbokk taalibe yëpp suñuy mbokk soxna yëpp ñu ngi leen ciy woo yaa maalikal mulki man jala ilham jami alwara ya hadiyan hada أخذناها والقلب من قرار بجاي عبد لمن لله قال جاء ما ما أخذناها والقلب من ضرار جاي عبد لمن لله قال جاي salaamaaleykum mbokk jullit ñu ngi ziar baax a baax di ziar bu baax télévision bi muy Tawfekh Production di ziar mbokk taalibe yëpp waaw mel ni kii wax yéen muy Cheikh Mbacke Diakhaté mbokk si taalibe sëñ Moutala Saliwi nga joxe daay xaaj waaw mel tey dañ fay teewoon tey ngir liggéey kër sëñ Balla bi xam sëñ bi moo ko woote ndax mën nañ sa bi mooy ñaareelu liggéey boo xam ne woote na ko muy deux ans waaw tey mu woo si ñu mel ni daayira lu ko waral sax mooy diggante ak xel kom daa jigee lool te soo bëggee jógee dëkk ak dëkk pour ñëw mel ni waa Touba waa a a metti mais daal ñun ñu fi teew teewal na ñi nga xamante mooy yeneen daara yi nga xamante war nañu te ñëwuñu waaye lépp na tamit ñu koy rafetlu baax baax ndax dëgg yàlla moom liggéey sëñ bi moo neex loolu waaye sa sëriñ tamit sant la liggéeyal dara daa ko kon loolu tawfeex la goo xamante ne moom suñu borom dimbal nañu ko ba ki ñu àndal mi sëñ Moutala Saliou di ko ñaan tam yàgg fi te wër tamit di rafet lu baax tamit liggéey bi ndax sëñ bi ku nekk gis ngeen jàmbaaram si si si si si yoon bi ndax gis ngeen xel kom bi boobu ba léegi ngi koy woote kër Balla gi tey toog si wooteen ngaa bu nga xamante ni kenn naam taal gis nga tamit liggéey bu rafet bi nga ne soobu na fa

te loolu tamit dañ koy sant sëñ bi rek ndax daanaka sëñ bee si jàpp. dama ni Tawfekh Production mooy sunu site Tawfekh Production mooy sunu site rawatina ñun waa kër sëñ taw Tawfekh la ñëpp yi wër bu nekkee xel ko bu nu gëstoo gis leen bu nekkee màggal bu nu gëstoo gis leen bu nekkee gàmm bu nu gis leen ñu ñëw kër Balla ngeen fekk ñu fi ñun yenee sunu télé yàlla na yàlla yokku leen defal leen ko télé bu ñëpp yi seen ci doole sëñ Touba xasaa yi di barke borom Touba.